lu waroon seen ndaje bi gis na da ngeen programme woon marché marché mujj am. waaw suñu ndaje bi tey euh, tey dañu programme woon def euh, marche ba gis ngeen ba tey si suba mi ngi jaar ci presse bi euh, ñu waroon def marche fii mais marche bi mujj ñu ko def dañu préféré def mobilisation sociale ak information parce que démb bind nañ ñun nous dans un pays de droit bind nañ. pour def déclaration de marche yóbbu nañ ko ci temps bi ci période bi ba dugal ko introduire ko donc li desoon mooy ni euh, di xaar autorisation bi génn ñu def marche bi mais il s'est trouvé que démb ak bërki démb gouverneur de dakaar daf ñoo convoqué woo ci benn réunion ci benn rencontre rencontre boobu tamit y avait l'APEX tamit bu fa nekkoon ak ñu ay représentants ba ñu ñëwee ci rencontre bi gouverneur daf ñu wax ni da ngeen nar a mars ñu ne waa dañuy mars la kii yooyu nit ñi ne xamal ni ñu si suñu dossier dafa am évolution bu ci am parce que temps yëpp doon nañ topp ci benn euh, information ba nga xam ni ñun collectif bi ñu ngi ko doon am ci bureau bi mais ñu ko doon partagé di def le suivi ba jéem a xool exactement fan lay mujje mooy aménagement bi nga xam ne dañu ko dégg. 40 hectares ci site Lac Rose ba nga xam ni ci pôle urbain Lac Rose la ñu joxoon ñu quarante hectares benn société bu ñuy tuddee Socabek di def aménagement bi donc quarante hectares boobu gisuñu ci woon kayit gisuñu ci dara ba démb nag ñu génnal ñu benn décret ci quarante hectares boobu wàññi président de la république signé na décret bi muy le 221 euh, 434 waaw 224 décret euh, prononçant euh, euh, à l'agence à l'application d'une parcelle de terrain d'une superficie de 40 hectares 6 à Bambilor dans le département de Rufisque distrait du titre foncier 1975 R en vue du recasement des impactés du terre et la réalisation des droits concédés sur le site donc décret bi nekk nii signé par le président de depuis le 8 avril ci conseil des ministres donc ñëpp gisandoo ko donc beneen bi euh, ñu joxaat ñu ñu xoolaat tey ji ñu jot journal officiel ñu def publication décret bi euh, ñu gis ko nii ñu joxaat ñu beneen plan de mouvement ba nga xam ni ko aménagement site ba nga xam ni euh, pare na ñun ñu d'ici jeudi dinañ déplacé wu avec le collectif dem def visite des sites ba pare buñ ci paree le le le jeudi ñu valider le le document commencer aménagement site bi parce que amoon na ay euh, euh, discussion yi ñu doon def déggoon nañ ci weewu béy ay apex discussion yu mu doon def ak euh, Socabeg ba nga xam ni en fin de compte tombé nañ d'accord donc loolu tamit en plus de ça ñu dugal suñu autorisation de marche comme jotaguñ ci lu leer amaguñ ci luñ leer tey nag journée bi veille veille marché bi amaguñu autorisation ñu woote une réunion d'urgence démb ci guddi ba 22h ak discussion yi nga xam ni bëri na ak collectif bi ba finalement li génn ci réunion bi mooy fi ñuy waxoon dañuy déparé def marche bi nañ fa déparé nga xam ni dañuy def benn communication de masse def mobilisation sensibiliser communiquer avec la presse li nga xam ne tey jii moo waral ñu suspendre marche bi. di leen wax ni. mais des na tamit seen revendication yi di leen wax ni décret boobu sax génn ñun yamuñu ci décret bi rek génn il faut que mu am exécution décret bi mënul génn rek ñu bàyyi suñu loxo moo tax ñu joxe ultimatum à l' état du Sénégal parce que ñun bu ñu jéggi woon ci marche bi dañu ne woon la prochaine marché bi ñuy def te du yàgg aussitôt dañuy booleeg les activistes l' opposition lu ñu mësul def nañuy def parce que loolu moo doon suñu plan action. dañ koy révéler fii ñëpp xam nga parce que de tout le temps boo leen ñu gisee kenn raxuñu woon ñun rek ñoo doon demee cavalier seul mais cette fois si loolu lañ bëggoon def mais faf yàlla décret bi wax léegi-léegi li ñuy demande mooy à ce que nañu accélérer les procédures ba nga xam ni dans moins de deux semaines ñu commencé aménager ces sites là. 40 hectares en plus des 40 hectares yàlla a camp militaire de Thiaroye où on a des notifications yi nga xam ne jox nañu ko te ñoom nee nañ dañuy dañuy aménager ces sites là dem nañ sax ba proposer yeneen sites yi nga xam ni bu doyul tam dañuy fay yóbbu ñu dugal ñu fi mais le principal c' est les quarante hectares de Lac Rose loolu c' le principal moom. parce que encore une fois li ñu waxoon dém moom la ñuy wax tey mooy terre bi du daw tant que réglé wuñu le problème de ces impacts du daw tant que ko te ñoom. nañ dawal teer bi à partir de novembre nañ bëgg a dawal TER bi ñun tamit il faut que ki règle nos problèmes ba pare avant que novembre ñu mën a passer à autre.